Toujours dans votre acte du jour de ce lundi 11 mars 2024 début de la présidentielle euh, ginnaaw bi nga xamante annoncé nañ ko le 24 mars nous avons ne que le candidat démb ñoom dañu nekkoon à l'assaut de li nga xamante banlieue bu Dakar ginnaaw bi nga xamante ni démb ci démarré campagne mais démarré wuñu ko fenn fudul foofu nga xamante ni banlieue bu Dakar suñu sukkandikoo nag ci cinq ci ñoom ñi nga moi ni mooy fukki candidat durant l'élection ci élection présidentielle yu 2024 prochain yi dañu prévoir sur sillonné li nga xamanteni moy dimanche démb muy sen premier jour campagne jaarale ko fofu ci plusieurs communes yo xamanteni dañ nek ci banlieue dakaroise ginnaw bi nga xamanteni meun nañu noté fofu ci Pikine Guédiawaye keur Massar ak Rufisque ginnaw bi ñu xamalé ki nga xamanteni moy cité jëmele ko ci staff respectif coalition yi nga xamanteni ni lañu tambali sen campagne fofu ci banlieue bu Dakar mu doon li nga xamanteni ben benn cas d'exemple la jaarale ko ci ay candidats coalition d'alternance dal di révéler les plus jëm ci citoyenneté muy arc di Anta Babacar Ngom suñu sukkandikoo ci li nga xamanteni moy programme programme du jour am na ki nga xamanteni dafa jël connaissance dal di prévoir effectuer li nga xamanteni et ben caravane jaarale ko ci grande marche d'aller di relever que lepp lo xamanteni ni mën na ko sillonné Pikine Thiaroye Guédiawaye ak li nga xamanteni moy parcelle Parcelles ba nopi ñi dal seete candidat bi nga xamanteni ni candidat coalition Kama 2024 di Boubacar Camara moom dafa annoncé animé li nga xamanteni et ben benn meeting fofu et Pikine Icotaf bu ci waxtu joté candidat coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba mom mom mu nekkoon fofu ci keur Massar muy ñëw foofa ca géejawaay ginnaaw bu mu prévaré def ay série d' activités ci lu mu xamle ba tey suñu sukkandikoo ci côté ki nga xamante ni mooy professeur Daouda Ndiaye di leaderu coalition bi nga xamante ni moom lañ tuddee président Daouda Ndiaye moom daal ñu ngi ko doon xaar également ci après midi bi ci commune yooyu nga xamante ni mooy Pikine ginnaaw raay Pikine euh, nord ak li nga xamante ni mooy raay Pikine euh, ginnaaw raay sud mu daal di indiqué membre euh, directeur campagne am ginnaaw bi ñu ko joindre au téléphone moom ci boppam moo ñu ko xamal ñu ngi sur place ci biir loolu nag ñi ngi gis nag ki nga xamante ni mooy leaderu coalition Diao 2024 di El Hadj Mamadou Diao moom it ñu ngi ko doon xaar démb ci ñetti waxtu jotee foofu ca département Kër Massar li ñu mën a jàpp daal mooy juróomi candidat démb dañu tànn ubbee seen li nga xamante ni mooy campagne électorale foofu nga xamante ni mooy banlieue Dakar di Anta Babacar Ngom kii di Boubacar Camara kii di Mamboy Diao kii di Amadou Ba ak kii di professeur Daouda Ndiaye amal nañu foofu daal seen début de campagne électorale ca banlieue